pas-pas bi ma ci amoon sax soppiku na nak ndax dama amoon pas-pasub addu ci ay kàddu yuñ waxoon ci fan yi jëme ko ci mam borom euh waye nak ka waxoon kaddu ya euh, mel melna ni kom jégglu na euh, kon addu ci dama koy daldi di soppi def ko kaddu yi rek jéggale kon kaddu yi kaddu yi jéggale lay tambalé doro ci indi nak sama Euh, sama ndénkaani bopp yoo xam ne sama bopp laa cay jiital euh, su ko defee rek euh, mbokk moom yi waxoon kàddu yi sët ci borom saam ndax sëtub sëriñ Soy bu Mbàkke la doon sëtub sëriñ Soy bu rek doy na nga ñu ne la kon sëtub borom saam nga waaye rawatina ba kër waajuram bu jigéen bokkee ci borom saam tegati ci kon moom it nag wax dëgg yàlla day ndaw tey ku baax ku bëgg lu baax nga xam ne ci lay wax ci lay dox waaye moom nangu na kàddu yee njuumte la woon waaye moom euh, dañ ko juumloo ki ko juumloo nag mooy ki bindu téere bi euh, ndax euh, ki bind téere bi moom it war naa jégglu nag ni ni ni ki ko doon nettali jéggloo moom war naa jégglu wala sax mu soppi nag téere bi téere bi daf ko war a nasaxal wa illaa mu nasaxal tomb yu demee ni tomb yi aji nettali ji doon nettali ndax téere bo xam ne ku dikk wax la nettali la ab xisa rekk nga bind boole ca ah, boobu téere munta wér ah, ab téere eh, rawatina nag muy téere boo xam ne nee naay da koo tudde garabug tuuba ah, te garabug tuuba nag dafa war a am meññet mu teey mu neex moo xam ne ku cay jëfandiku doo gaññi waaye meññet mii ñu ci tàbbal de moom meññet mu naqare la lool lool lool lool sàq mi koy yombut waxuma laa di ko wan kon eh, tur bi moom wuyowu téere bi waaw war nañoo nasaxal téere bi wala ñu soppi tur bi tudde ko neneen eh, ñu moytu yu mel nii su ko defee rek aji nettale ji moom eh, ñi ngi koy xamal ne daal ku baax la ku bëgg lu baax la jéggal nañ ko te yaakaar naa ne bokk yi dégg kàddu yi jégguloom yi yëpp war nañ koo jéggal ndax ak tooñkat lu mu rëy rey jéggulu moo ko ëpp doole ndax sun borom sax tabaaraka wa taala moo moom jaam ñi binduñu te dañ koy tooñ mu duñu jéggal rawatina nag ñun ñi xam ne ay jaam lañ ci sunuy biir kon war na noo mën a jéggalante te yàlla rek tax eh, rawatina mbir moo xam ne nag day mbiram waaw kon daal li ñuy wax rek liñ koy wax rek moom eh, mi jéggalu te doon aji nettali ji ñu ngi koy woo ci liggéey bi mu gën a góorgóorlu bu baax a baax te yàlla musal ko ci am ndok euh, ndax ndaw la lu bëgg lu baax te su ma sañoon mu àggale ab liggéeyam su ko defee rek gannaaw jégalu na yu mel nii mu di ko moytu bu baax a baax a baax euh, sunu rakk la ko baax la euh, su ko defee rek kon li may dénk sama bopp di ko dénk ñi ma ko sañ a dénk kon li may njëlbeenoo rek mooy ni ma ko waxee sant yàlla sunu borom tabaaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal sunu yaakaari tey ak ëllëg di Cheikhuna Ahmadul Xadim mi nu booleel. Euh, sant maam borom saam di ko bége ci di sant yàlla ci boole gi munu booleeg moom euh, su ko defee rek bu loolu jàllee li nga xam ne moom laay dénk sama bopp euh, te di ko dénk ñi ma ko sañ a dénk mooy ñu gën a góorlu ci xool fu ñuy teg suñ tànk ci xissa yu mel ni ndax borom saam dañ ko yàgg sosal ay sos yu mel nii yoo xam ne dara du ci dëgg waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp te liñ ko sosal ci ay xadis ay junni junni junni la yoo xam ne dara weeru ca eh, kon cheikhuna ahmadul xadim mii jëwriñu yent bi ci ko suuf bu dikkee ñu sosal ko ay xadis yoo xam ne ay bind rek la di bind di dajale di sos di dajale Sëñ Tuubaa ko wax kon muy yu yoo xam ne dara weeru ci kon bu boobaa du jaaxal kenn ndax yonent bi lañ njëkk a sosal ay xadis yoo xam ne ay junni junni la kon yi ñuy sosal sëriñ bi daa bari ne moo ko wax waxu ko rawatina nag lu mel ni lii nga xam ne dañ koo wax jëme ko ci magam ju tedd jii nga xam ne da koo fonkoon lool bëgg ko lool doyloo ko lool nga xam ne ni ma koy waxee moom waxoon na ne ñaari ngi ñoo xam ne bu ñëpp meloon ni ñoom du ma sonn tey du ma sonn ëllëg muy sëñ moorum soxna buso ak ak ak Baye Ibra Baye Ibra nag mooy sëñ Mbàkke Kajoor di rekk sëñ Mor seli ñaar ñoo ñii la Sëriñ Tuubaa waxoon ne yóbbaale wuñ ci seen bàmme seen bàmmeel yóbbaale wuñ ca bàkkaar yóbbaale ca bor kon ni ni ni sama borom bëgg jaam bi mel ni ñoom dañ ne meloon lii Sëriñ Tuubaa ko seere ci ñoom ñaar ñooñi kon suñ morom soxna Buso ku ku mat a bàyyi xel la du koo xamante ni bii lu waay boobu rek xapu ko ko waaw de wërta demee noonu ah, waaye nag li may dénk sama bopp mooy ñu gën a góorgóorlu ñun njabootam gi fi gi fi nekkee li ci gën a xam le kan mooy e, sëñ Mor sëñ Morum Soxna Bousso maam borom Saam war nañoo gën a góorgóorlu ci gën koo le bu baax a baax ndax e, xamle gi gën a baax ci xamle sax nag e, mooy lam bëggoon nga bëgg ko nekk ca di ko jëfe di ko waxe te loolo njaboot gi ñu ngi góor góorgóorlu luñ man waaye dafa mel ne jamono daa toll foo xam ne nit ñi mënatu xamatuñu loolu nit ñi xamuñu boobu le nit ñi léegi liñ xam mooy média kon nañuy dem ci média yi di yëg di xamle kan mooy jëmm ju tedd jooji waaw euh, na luñ nuñ ko mën a wane rek bind jar na sax bind ay téere ndax kër suñ morum soxna jaar ay borom xam-xam rek ka fi nekk ay ay kàngama fi nekk yoo xamante ne bii koo ci tudd ñii am na ci xam ne ay ay ay shaa'ir lañ ay am na ci ñoo xam ne euh, xam-xamu biddiw dañ ko euh, xam-xamu feq xam-xamu charia xam-xamu euh, fànni xam-xam yi funoon yépp rek boo ci dem dañ ko dañ koo bari lool lool lool kon war nañoo mën a bind sax ay téere ci moom gën a yaatal loo xamante ne bii dana wane ne mboolem yiñ ko daan sosal dara du ci dëgg kon histoire war nañ koo soppiwaat bu baax a baax euh, lu jiitu Euh, waxi sëñ bii doon jéggulu am na ci ñoo xam doon nañu wax wax yu ko gën a garaaw foofu sax damaa defe ne bokk yi ñoo ci dul bàyyi xel rek waaye am na ñu doon wax lu jiitu wax ji wax yu gën a garaaw yi ci ci ci jëmm ju tedd ji kon loolu bokk yi nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax di ko saytu euh, ndax borom saam de euh, xam ngeen ne bari na ci seex yi ñoo xam ne ku Sëñ Tuubaa masa gërëm dala yebal ci moom nga liggéeyal ko. ba mu gërëm la moom la lay topp door laa topp loolu sëriñ bi defal door la ko defal bari na ci lool euh, xool leen ku mel ni Cheikh Ahmadou Ndumbe Xabbaan euh, sëñ ba Ndumbe du ku ndaw sëñ ba euh, nit ku mag ku kilifa gu mag la ku bari daraja la waaye gis ngeen ne lim li muy yàgg yàgg ci kër sëñ bi ci tarbiya teewut ba ko sëriñ bi yewee da ko booleek borom saam ne ko demal ba mu gërëm la se borom saam téye ko fa fukki at yu mat sëkk sëñ Mandumbe tarbiye na ko borom saam ba mu gërëm ko ba màndargaal ko ciw kayit yónnee ko sëriñ bi la koy topp door ko topp te yemut ci moom ba ay sëtam ak i sëtaatam ba aljanna day na ci ñoom kon kooku du ko ndaw waaw Cheikh Ibrahima Fall làmp Babul Mouridine sëriñ bi yebal na ko ci borom saam mu téye ko fa ab diir waaye kero ba mu ko wooyee euh, gërëm ko ba ñaanal ko dénk ko ba Cheikh Ibra genné bokku na ci lam ñëk wax moy ah bismillah jamm ah ndekki señ Bamba deug deug mbir yi ma nga mu ci kër ndayam ah loola la tax mu wax ko lamu gis kër soxna kër kër kër kër mam borom saam la lamu gis kër mam borom la mom hmm? Cheikh Ibra dafa amone euh, xol dafa amone basira waaw gisub xol la amone motax mu xam la fa nek waaw kër borom non moo euh, kayu sekkere yi sëriñ bi waaw dëgg dëgg mbir ya foofu la ne waxi bi Ibra su ko defee maam Cheikh Mbay bu bu kilifa gu mag la euh, daana wax ne kër sëñ Moor Jaara day baytul wilaayati la soo fa bokkee soo judduwaalewut ak wàlli yu sax soo góorloo tuuti sun borom def la ko def la wàlli kon kër googu mag ñi nga xam ne ñoo natt nga woon ak moom xam nañ mooy kan mag ñépp a ko tudd ay doom tàmbalee ko ci maam Cheikh Mbay moom mi may wax tàmbalee ko ci euh, cheikh yi njëkk topp Serigne Touba Xaadimu Rasul Cheikh Ibrahima Sarr Cheikh Ibrahima Fall Lamp ah euh, sëñ Malick Basin si sëñ Ndam Abdourahman loo gaa yu baax yépp ko tudde ay doom waaw ba ci doomi Serigne Touba yi dale ko ci Cheikh Moustapha Al Karim gis nga sëñ Mbacke Madina moom la ko tuddee ah jàpp ci Cheikh Modou Fadal ba ci Cheikh Mamadou Mourtada ñëpp a ko tudd ay doom kon kooku. Euh, ku ko umpalee da ñàkk ndimbal waaye man damay wax ne euh, ku am cër ci Sëñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg ah, da nga fonk borom saam da fonk Cheikh Ibra ñaari ka ñaar ñëpp sax lañ lañ lañ war a waaye ñaar ñii dama leen cee gën a euh, dafa am lu tax ma wax ko waaw kër Cheikh Ibrahima Fall ak maam borom saam ku am cër ci Serigne Touba dëgg dëgg da nga leen bàyyi xel waaye mën naa cee boole ñëpp sax nag ko ku am cër ci Serigne bi doo doo doo doyadal lenn Serigne bi waaw. ndax sëriñ bi de dafa bëggoon lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ku ak taalibe ñor da nga am cër ci sëriñ bi da ngay fonk lépp sëriñ bi waaw yu bajjul kulli kullakal yawma ma xadin loolu la wax yonent bi sama lépp day day màggal sa lépp waaw tay ak ëllëg kon nun ñi nga xam ne dañoo bëgg ab cër ci sëriñ bi te bëgg sunu taalibe rafet danoo ba war a fonk léppi sëriñ bi waaw sëriñ Tuubaa xaadimu rasul nag ah, ah, gannaaw ci nit ñi la feeñ faw day am nday am baay am mag am ami rak dëgg la daana wax ne ooma ooma doom ooma jarbaat hm? ooma ooma rak loola ba mu koy wax ñettee woon ak ña demee ne ñoom calañ loolu dëgg la ay tolluwaay la waaye eh, tamit teewul nag wàllu nit gi bu dikkee itam ñooñee kenn ku nekk cër ba nga am ci sëriñ bi eh, yaa ngi koy jëfandikoo cër ba nga am ci sëriñ bi yaa ngi koy jëfandikoo bu baax a baax a baax a baax su fekkee ñëpp dañoo doon ay taalibe eh, sëñ tubaa bu boobaa amut doom amut eh, rakk amul jarbaat hmm? bañ boole ci mag ndax buñ nee rakk man mag mën naa dugg mën naa dugg waaye yooyu yëpp bu fekkee am na ñu di ko dunde niñ ko war a dunde bu boobaa kon bu kenn neeti diw doomi sëñ Tuubaa bu kenn neeti diw rek suñ tubaa mbaa magi suñ tubaa mbaa jarbaatub suñ tubaa kon suñ tubaa nañ ko bàyyi fee muy ak càppaaculi goo xamante ni bii eh, moom dong la am lam am su ko defee ñëpp maase di taalibe te ñëpp buñ maasee di taalibe nag borom saam di seen magum taalibe waaw ñëpp buñ maasee di taalibe borom saam di seen magum nañ ko bàyyi xel waa ji maa ngi fàttaliku ndeysaan Serigne Moustapha Beto radiyallahu taala anhu wa nafaana bi doomi Serigne Mor Soxna Mbàkke la mii taw borom saam ku bari woon ay xikam la waaw dadaa waxtaane lu baree baree bari ci yoon wi benn bis mu ne Cheikh Mudul Fadal dafa ñëw Mbakke ci néeg bi nga xam ne e, borom saam moo ca dëkkoon ci këram googu yi ci Mbakke sëñ Sobeto nee na sëñ Fallou ngi toog nii ci lalu weñ bi nee na maa ngi sukk nii ci wetam Cheikh Amadou Fadal daal ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko néeg bii de fii ma toog nii de yoonu murit yëngu bi li muy rey rëy rey rëy dynamo bi ko yëngal fii la nekk waaw moom bi yëngal yëngu yoonu murit lépp dynamo moom fii la bàyyi ko dynamo nag mooy poste courant mooy fi nga xamante ni fii la machine yi nekk te mooy kër kër sëñ Morom Soxna Bousso lii Cheikh Amadou Fadal moo ko wax wax ko sëñ Moussa Beto sëñ Moussa Beto dellu wax ne. sëñ Fallou nee na ko diggante borom Tuuba ak borom Saam day dafa mel ne diggante martu ak dëkk diggante martu ak dëkk nag tëgg yi xam nañ ko waaw de yaakaar naa diggante martu ak dëkk nag euh, baaraam xaju fa loolu la ci sëñ Fallou teg nee diggante martu ak dëkk de baaraam xaju fa ku fay dugal sa baaraam de léegi tey ñu tecc la waaw kon diggante boobu nañ ci maandu te xam fuñ cee teg suñ tànk wax ji may wax yépp nag. jëmewuma ko ci waxoon wax jëmewuma ko ci waxoon jëmewuma ko ci ki waxoon wax ji ba noppi jégalu maa ngi koy jëmee ci ña nga xam ne ñoo ko jiitu woon doon wax yu ko gën a doy waar hmm, ak ñi nga xam ne ñi ngi ci suñ kanam te bëgg gëstu te bëgg xam ñu xam bu baax fu ñuy fa ñuy teg seen tànk ñoo ñoo moom wax ji ak eh, mboolem koo xam ne bëgg naa jëlug la biire waaw bu loolu jàllee nag eh, nañu gën a yaatal ndax Sëriñ Tuubaa Xaadimu rasul dafa yaataloon waa ji sëñ bi lu yàlla yaatal ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa xaadimu rasul ñu ñu bëgg koo xatal nañ bàyyi xatal gi te yaatal waa ji sëñ bi gën naa yaatu lii de seexul xadim gën naa yaatu lii de ñëpp la yaatal wax dëgg yàlla rawatina ku mu bokkal lépp nag wax dëgg yàlla euh, su ko defee nag am na mbokk moo xam ne euh, addu won na ci kàddu yu am solo kàddu yu soññe maa ngi doon laajte ku mu doon ñu ne ma euh, am na ku ne ma sëñ Cheikh Touré la tudd am ku ma sëñ Moustapha Guèye bu Italie dama xamul nag ku mu ci ñoom ñaar waaye comme ci man di doon wax na kàddu yu am solo yu ñëpp mën a dégg waaw ndax ba ma déggee kàddu yi rek dama ne kii de dafa sàqami sama lanc ba tax na sax bëgg na su ma daanee lay samay kàddu sof ci kàddoom yooyu boole ko ci euh, ci ci ci sama kàddu yi ba ñu ko déggutoon mën koo dégg. su ko defee nag ñu gën a góor lu baax a baax te roy ci Cheikh Mawdul Muntaxa mii nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi te mate ko sëkk. bëgg lu baax lool teg tànkam ci siraatal mustaqim di ko dox di ko jëfe di ko xeeñtu di ko digle te de gannaaw bu mu ko jëfee ba noppi waaw barki démb rek maa ngi dégg vidéo gis vidéo bu muy e, boo xam ne waa kër borom saam dañoo defoon ab wafdu bu mag dem di ko siyaare ji keroog wax ci kàddu yu am solo ma seetaan ko muy wax ne e, suñ nee ko diw ci kër borom saam la bokk nee na cofeel gi mu am ci borom saam kawe na kawe goo xam ne day làmbaale kookee waaw ah, defe naa kooku ku roy ci moom de da nga xam fooy teg sa tànk ci diggante boobu mu ne Maam Mor dafa am ci moom cofeelu xol mu ne loo xam ne tawféex la ci moom sëriñ bi waaye tawféex jooju mu ne làmb na booleem ku bokk ci njabootu Maam Mor mu ne bu ñu ne ko kii diw la bokk ci Maam Mor Jaara mu ne cofeel googu mu ne cofeel googu da daal xëccu ci xolam jëm ci moom mu ne rek la ko mën a misaalee ah, kon noo ngi siyaar Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir bu baax di ko ñaanal suñu borom gën koo yàggal te gën koo wéral ba mu àggale ay naalam yëpp barkeb sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di siyaare sëriñ Abdullahi Mbakkim sëriñ Modou Mahmoud moom borom saam mii nga xam ne moo fi eh, eh, wuutu njabootu borom saam gépp di xalifa bi ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaan suñu borom wéral ko moom it te ko te yàggal fi mboolem taalibe yi waaw jërë ngeen jëf wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi kon mbokk yi ñu bokk déglu kàddu yi ma doon wax. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki Sénégal ñëpp rek fépp fu kep ko dib jàngkat kuy kat ko dib taalube kuy domi kilifa kuy satop kilifa maa ngi lay nuyu di la siaré di la denk di denk sama bop ci la Cita ci jamono ji yàqu ji nga xamné communication moy xex communication moy yàq moy saytane moy defarit nak kon nan daw wuti lu wax rafet ñu diko def surtout ñi nga xamné dañoo bok fu bax hmm, di len siaré nak fay ci di douze di ñaar li fukki fan ak ñaar ci soxbaan muy lan barawlu atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fuk ak ñett di seize mars deux mille vingt et un di bisub àllarba defe naa ne ci laa bëgg a wax ci wax ci nag li ko yëkkati mooy xese yu bari ci réew mi ca gone jafandu ci di ci xuloo di ci sos ak mbind yu bees yi téere yoo xam du téere diine du téere dara mënees koo dugal dugal ci lislaam ci ay roq rek la yem ci mbiri ay juddu ci diggante ay kilifa yoo xam ne seen yoon nekku ci ngeen di gone ma di leen bàyyiloo xel wala boog ñu di gone ñun ñëpp ñoo fekk sun maam yi sun bàyyi defar lépp lekk ci ndab li ba regg ubal ñu ko ba bin ñëwee dañoo foog ne sax ndab li kenn laalu ko ndax yar ak teggin ak baax ak sutura ak xam-xam léegi nag ma gis gone yi jël am njàng te njàng du xam-xam jiital am-am jiital daraja yàkkamti lool seen àdduna ci ay poñet ca leen jëlee ci seen maam ñu foog ne poñet lan war a jëlee ci seen maam yi ca poñet moom yëfari leen ko ëppale du ngeen leen ci dab duñ leen ci dab boog mënuñoo fexe ba dab leen ci kon Sëriñ Tuubaa buñ ko yóbbu ci ay poñet buñ ko ci yóbboo ab musicien ko cay daane wala footballeur Sëriñ Tuubaa loolu tax koo jóg góor yàlla yëpp nag laay wax bu ma waxee Sëriñ Tuubaa rek wax Seydi Alaaji Maalik wax Maam Abdoulaye Niass rek ñëpp tax may wax ñooñu loolu taxu leen noonu jóg poñet àdduna mi yàlla ñu ko jox ñu koy joxalante ci suñ biir yàlla ko waraloo ñoom ëllëg leen taxoon di liggéey seen mbokk gi ñu nekk nag ca gone yi jóg tee daraja ak waxante lu bon ak di foraatu ay mbind yoo xam ne nee naan ay mag a ko bind bala maa bëgg dee ñu naan mag sàngam mag sàngam démb ca jamono yonente ba tey ay naafeq dafee nekkoon yoo xam ne dañuy dund ci diine tey jii dañuy dund ci tarixa yi tijaan ak laay nag xaadir ak murit ak lépp doonoon ay mag mag dafa jaar cig ndaw ca gone bu jaaree ci ay fen ak ay wor ak yareel bu màggee it day tari dong loolu ba leen ko xel gone boo ko yarul ba mu doon mag it day mag mu réew rek lay doon mag mu saytaane rek lay doon mag mu naafeq loolu nag lislaam kenn da ko cee ëppalewut ay naafeq yàlla wax ko fu ne ci alquran kon nag tarixa yi dañ ciy am ba doyal gone yi nag ñooñu lañ daw wuti ndax bu dee jamono si daan Malik Sëñ Tuubaa lu ma doon dañoo nekkoon ak mag yoo xam ne dañ daan dund ci ñoom boole ko di wax lu du dëgg di sos ngir gone yi topp ci ñoom gëm leen ñu cay lekk loolu dafay yàgg ci yoon wi lool waaye tam ma tax di wax ndax ci laa bokk gone yi nag ñëw daw wuti côté boobu ku ci jàng daal ba xam tuuti lu mu tuuti tuuti mën a woy tuuti bëgg di way boole koog di xool mag yi naa feqee seeni woy ak seeni mbind nga bëgg koo indi di ko tasaare di ci wut xaalis ci ay xisa moytu leen loolu loolu dana ñëndil problème dana tax waxkat yi nga xamante ne bii li ñuy wax kenn mënu leen a balaame ndax ñun ñii ci suñu bopp ñun ñooy yàq di sosal Serigne Touba di sosal Seydi El Hadji di wax loo xamante ni ñoom waxuñu ko ñoom li wax dañ ko bind leer na kenn mënu koo corriger waaye ñun ñi bëgg a dund ca nanguwuñoo liggéey ca ñeme yàlla ñoo tax képp ku nekk ci Facebook TikTok bi ñu xas kenn du ko mën a dindi nag kenn mënu leen a balaame ndax ñun ñoo noppiwul ñoo waxul li ñu war a wax ah diggante sëriñ Touba nag ak magam jii di borom saam lii ma ciy dégg ñaaw na lool. Serigne tubaa day nan lay amee li mu am kenn maanaam ci àdduna di ci ëppale borom saam loolu xel nangu ko loolu ngor nanguwu ko jom nanguwu ko fulla nangu ko sëriñ borom saam kenn ëppale ko ci Serigne tubaa kenn mënu ko ëppale ci Serigne Touba ak ku ci dajale sa alal nag defe na yow yaa ëppale ci Serigne Touba borom saam ci Serigne tubaa wéro borom saam daa gore da dis gor rak xam xam ne rakkam ji am na lii moom it am na li am ñoom ñaar. ñuy ñoo xam ne dañ doon liggéeyal lislaam xajalante suñ jikko yi buñ leen ko as askanale ñoom meluñu noonu suñ soxor gi suñ iñaan gi sun sis gi sun bëgg daraja ji suñ bëgg juddi yi ñoom nekkutoon ci ñoom ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi waay waay nit ñi sëriñ tubaa defee ngeen dana wax borom sam lenn loo xamante ne bii day nuru waxi nit waxi nof yi ñuy wax ay waay sëriñ tubaa jenn wax bu leen ko ko askane jenn wax ji dafa ñaaw xanaa ñun ñii sax suñu rak ak suñu mag duñ leen wax wax yu ñaaw ak suñu bon gii borom saam ko taqal yaa tak borom saam mooy magi serigne tuba borom sa moo baax moo tedd mooy gor moo yaatal ñëpp ba ñëpp am serigne tuba kenn defalu ko dara borom saam kenn defalu ko dara ñoom ñoo bokk ndey ak baay bu kenn dox ci seen diggante ay waay ñoo bokk ma moran serigne ak maam jaara busa ay waay ñaar ñi ma nga gëb ak fa jële ki ak di def ak wax nañ li wax nañ la su boobaa kon serigne tuba dutu mat di waxe dof yi ngeen di wax xam ngeen loolu bu ko serigne tuba waxe xam nga ne kat <laughs> loolu xel da ko nanguwut l'islam nangu ko jom nangu ko ngor nangu ko ak mbaax nangu ko ak yaatu nangu ko ay waa ji li ngeen di wax bàyyi leen xel ne ay gone ngeen seen xese yi ñi koy wax ak ñi koy bind ñoom it ñu ci bari dañoo na feq yéen ngeen di ay gone ca ne na leen ba tàyyi am xel du jiituy at am am bu jiitooy at akum xel du doo xam looy wax ci ay gone ngeen seen tànk gudd tànk bu gudd paasul fa war ay am yoo dem Europe loolu tànk bu gudd tànk bu gudd moo ngi dem yow cundum bi xeex ci àll bee ko xuloo ci àll bee ko sonn ci àll bi ko xiif yéen seen daara sax naqariwul daara joo xam ne sa bàyyi la fa yóbbu wala ci sa bàyyi lañ la yóbbu ngay lekk lu neex mokkal alxuraan bind jàng sa quelque téere xam-xam bëgg a defee ne mën ngaa fël di wax nit ñi la jox xaalis nga foog ne mën na te nga am xam-xam ab dof ngay dul waaye mënatoo am xam-xam loolu du xam-xam loolu as njàng dongal as njàng sax la nag du mu njàng jàngi leen alquran ca jaamu ji yàlla ca xam li yàlla wax ak yonent bi ak Serigne tubaa am na loo xam ne mbind yoo xam ne suul leen ko sànni ko du waxi dëgg lakk leen ko Serigne Touba mi daan bind lu am solo sax daana bind sànni ci géej gi leen la mu lakk ko leen la mu suul ko ngir bañ nit ñi di ko xam ne nit ñi naa naafeq lañ gone léegi yii nag képp kuy bind dil bind loo xam ndax réew nañ dof nañ xamuñu ci li ñuy wax dara ca bëgg nañ alal yàkkamte nañ ca foog nañ ne gën nit ñi dëgg ci ñoom dañuy tricher li ñuy wax du dëgg ci ñoom ca bëgg nañ dara bëgg nañ ak wàlliyu bëgg nañ wilaaya ca dara mos mënuñu ko gént lëjël na nit ñi ñun ñu ngi rus ñun murid yi guddeeg bëccëg ndax bu buñ déggee borom saam Serigne Touba nit di ci wax ca dib sët loola ñun am nañ gàcce lool ndax ñun ay donga lañ de ay taalibe waaye nag am nañu xel nag ëpp leen ñu xel de sutu leen ñu tànk de dàqu leen ñoo jàng de gënu leen ñu de Serigne tubaa def lim def de ay eh waay ndab lii Serigne Touba def ak suturaam si malaanam mii ku nekk malaanam mu muur la ko malaanam mbàjj moo xam ne doo yëgub seet doo yëgub tàngoor ca nga bon lool ay eh waay bàyyi leen rasu bi weq bi ak di dindi malaani jàmbur yi ku nekk sa malaan téye ko ca jaamu yàlla ca baax ca def yëfi nit bàyyi leen waxi yi ngeen di wax ay gone ngeen demagu leen fenn quarante ans ba cinquante ans ci doomi kilifa amul xel képp koo xam ne sa ndey ak sa baay ngi dund man mii de fi mu ne nii defuma la nawle ndax xam naa ne doona goo góor amagoo wilaaya képp ku sa ndey ak sa baay di dund yàlla engagé engagé gu ci yow 100 pour cent parce que da ngaa dese yërmande loolu ci yonente ba tey noonu la lay dox ba ci sëñ Tuubaa bi noonu la doxe man fi ne képp koo xam ne gis nga sa ndey gis nga sa baay bul foog ne mukk danaa bokk ak yow yenn wax yi boo ma toojee sax mën naa laa baal ndax ba tey dese nga ak réew ne xamoo li xew. Ah, ndax ba tey daa am foo làqutu amoo fit timit nag da ngaa làqutu ci doole jàmbur looloo tax ngeen di wax seen waxi dof yi rek waaw bu ko defee ñaan la am nga fit ak am nga nangam ak ngay yori pistol ak di wëndelu di tëkku nit ñi fekk dara ci darajay jàmbur sa darajay bàyyi wala darajay xalifa sa wala darajay famille ca nga ca nga wékku wala ministre wala député wala nangam wala xame waaye du fit du njàmbaar du tànk bu gudd du dara kenn amu ci fit kenn amu ci fit fit dëgg dëgg mooy kii ngar daajoo jëmmi boppam ji yaakaarul ndey yaakaarul bàyyi ñëpp dee nañ yaakaarul ab sëriñ buñ ko jàppoon day dugg ci biir kaso ba bireŋ ko di lekk ci ca jagaaba kookoy góor kenn du ko indi laaj waaye koo xam ne bu ñu la woon téeb tey si xalifa général ngay njëkk a woo téeméeri bool dana ñëw ci añ kooku man danaa ko def morom man kooku danaa ko def nawle ci njàmbaar bàyyi din seen caaxaan yi taalibe yi dofuñu de ay nit lañu de bàyyi leen maam maam maam Mor Jaara moog Sëriñ Tuubaa lañ ñamale ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi suñu yoon da ci nekkul maam Mor Jaara nit mënu koo gën nit mënu koo gën Serigne Touba li ñuy wax dañ koo liggéeyal dara la ko nit liggéeyul defe ngeen gor gor ay ay ay ay ay xaw ma sàkket ay sàkket ak gor mat ak dégg ay ëkk ak ak indi xaal loolu defe nga mën naa jënd leen Serigne Touba defal ku ci mën a doon sun maam yi ñun ñëpp sun maam yi ci Serigne Touba lañ nekkoon ban pare dañoo ñëw lekk ko luñ defal Serigne Touba Serigne Touba bi liggéey bi liggéey bi tax ñuy wax kenn jàppale wu ca kenn. xaddiimu rasuli ji mu tudd liggéeykatub yonente boobu du du gor du gor du gor mat du sàkket du tabax du dara ak jaamu yàlla la topp ndigalal yonente bi doon mbindaanam ban ne liggéeykatu bu nee liggéeykatu yonente bi yéen liggéey seen liggéeykatu seen tubaay lu war a def du gor mat dong de ak sàkket ak yenu déedéet boo dee liggéeyal seen tubaay da war di wax waxi nit di wax waxi nit di jàng téere bi cay topp ndigalam di jàng alxuraan di jaamu yàlla yërëm nit ñi cee xooy nit ñi ci suturaal nit ñi nañ suturaalante bàyyi leen maam Mor Jaara lenn li dafa ñaaw lii dafa ñaaw a dégg lii dafa ñaaw a dégg sa noon yi la dégg ci jamono yi nga xam ne lépp dafa ubbiku loo wax mu siiw maam Mor Jaara kenn déggut coow waa këram kenn déggut seen coow ñi ngi leen cell yor lañ yor poñet du ci ay poñet li ngeen di yaakaar ne mooy poñet mooy yëfi Sëriñ Tuubaa ay oto ki kër loolu sëñ Tuubaa boo ko fay jëmee rek am ko ko daane mbooleem xalifa général yi ci réew mi laa wax Sadio Mané mii doo nga leen ëpp xaalis Sadio Mané waxuma laa ki métti kon xaalis bu leen ci jëmee sëñ Tuubaa ak Seydi El Hadji Malick ñoom bu leen dugal foofu ñooñu ñu làmb jooju soxla wuñu ko làmb jooju buñ fa demee gone leen di daane ñoom ña nga ca làmbi góor yàlla làmbi yonent yee war luy bàyyi leen seen caaxaan yii nit ki su fekkee nangu liggéey di jëlee xisa ba nii ñu yabe yoonu murid yabe ko yoonu tijaan paase wut waxtaankat yi ay gone yu ndaw juddu barki démb nangu ñu liggéey sol mbubb yu rëy nekk ci télé yi télé yi den iwité ñuy defi base di leen iwité ñu sosal Sëriñ Tuubaa di sosal mag ñi di wax loo xam ne moo neex gone yi nga xam ne amuñu kilifa bu ko defee ñi nga xam ne bëgguñu Sëriñ Tuubaa am na ñu sax bañuñu Sëriñ Tuubaa mais seen wax jee leen soof Sëriñ Tuubaa kenn bañu ko seen Alaaji Malik kenn bañu ko ma Abdoulaye Niass kenn bañu ko ma wax yi mu ëpp mu ëpp moo mooy yëf yi reewane ca tegaw ci lislaam seen téere yu ndaw yi ngeen war a bàyyi bàyyi leen téere yu soof yi addis yi am na yoo xam ne kenn du ko wax sànni leen téere yi gas ko sool xisa yu ñàkk fay di xisa yi xam ne encore mbaay yi ñoo koy bind fenkat yi sànni leen yi ngir yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa sax sànni nay téere gas nay téere téere yi waxi olof yu ñàkk fay di yi ngeen koy wax loolu mooy lan loolu ko koy déglu ak ko gis lii dem àjjana ak ko gis lii yooyu bàyyi leen ko loolu du dëgg loolu du dëgg jàngi leen alxuraan ca dégg ko ca diglu ko mooy ndigal lu mag li roy leen mag ñi si bàyyi seen yi fi gone yii da ngeen defee da na amum xel amu leenum xel amu leen xam-xam as njàng ngeen yor gone ngéen seen at yi mëtagul mëtagu leen koo xëy ba nga juddoo ba tey mosoo xeex mosoo xuloo mosoo dugg kaso mosoo dugg armée seen daara yi du daaray dara dara daara joo xam ne foo toog yaa ngi say bàjj nag say maam ak say yooyu di lekk ba rek loolu du daara loolu du dara fenn fu ni formé nit jaaru leen fa da ngeen nekk ci barke réew taaliba yu dof yu réew yi nga xam ne liggéey nañ naafeq yu liggéey wala kàccoor bu liggéey ba am xaalis boo ko yombalee àjjana lu mu yor jox la ko waaye bu gindikoo la dégg loo dégg mooma te nit ñaa ngi gindiku de seen waxe dof yi nit ñi ñu de vraiment lajal ngeen nit ñi bàyyi leen Maam Mor Jaara ak Serigne Touba kenn ko ëppale Serigne tubaa ci maam Maam Mor Jaara mënu la am bokk ndey ak bàyyi fala falo cër yam Serigne Touba nag jaamu yàlla jàngal ko sëñ bi ànd waaye waaw waaw jenn wax ji koy wax yow yow xanaa xanaa xanaa am leen um xel loolu ni su koy waxee maam Mor Jaara daa soxla moom ay oto yi yi yeneen seex yi soxla am na seex yoo xamante bi tey ñu ngi ñu ngi sukkal seeni maam ca billaahi Sëriñ Tuubaa wax na leen loo ne lii buñ ko waxoon àdduna xam nañ li xew de yoo xam ne fen lañ fa nekk woon ak sàcc ak lekk yàpp barke Sëriñ Bàmba li ma leen xam naa ko bàyyi leen maam Mor Jaara du moromi kenn ci yoonu murit la leen ngeen nit ñu trop yi mu ne maam Mor Jaara dafa am ci moom cofeelu xol mu ne loo xam ne tawféex la ci moom sëriñ bi waaye tawféex jooju mu ne làmb nag booleem ku bokk ci njabootu Mamour Diarra mu ne bu ñu ne ko kii diw la bokk ci Mamour Diarra mu ne cofeel googu mu ne cofeel googu da daal di xëccu ci xolam jëm ci moom mu ne noonu rek la leen ko mën a misaalee